asalaamaaleykum mbokki Sénégal mbokki àdduna seen jaaxle jeex na ci wàllu ñaan ak Serigne Saliou Likhlass Mbacké yow mi nga xam ne cat moo la sonal wala nga bëgg ay kaaraange ci sa bopp wol Serigne Saliou Likhlass Mbacké yow mi nga xam ne da bëgg bayra njaay wala bayra xees sa bopp jokkool ak Serigne Saliou Likhlass Mbacké yow mi nga xam ne sa loxo dafa bënn maanaam loo yor du taxaw wool Serigne Saliou Likhlass Mbacké ak yow muy tukki te bëggoo faatu ci àll Likhlass jaaro indil na leen ay jaaro aqiqa yu am solo ci couleur yu mucc ayib ku bëgg a jokkoo ak Serigne Saliou Likhlass Mbacké mën nga ko woo au 77 776 73 73 au 77 776 73 73